man mosumaa xam ne kii dooley waaye kii yax yi doole ji mu yor ni mu takkee Bombardier ni mu ko xëcce mais Reug Reug vrai champion la Reug Reug vrai champion la nii kenn mosu koo daanee Bombardier ci làmb sénégalais yi kii am na avenir ci làmb ji nañ waxante dëgg man damaa tiit ba ma seetaanee combat bi xëcc la ko def ñoddi ko ba mu ñëw calendrier bëm rek dóor mais Bébé Diène yow Bébé Diène yow moom xam nga lan moo baax yóbbu la ci ñaari daqaar yi takk la ay fiil di la dóor di la dóor di la dóor ba nga day yow sa wax ju bëri ji ñëw benn kuul la yow doo tus lu tax ngeen bëri wax yéen te du ngeen wane dara waaye non non waay ah.